salaam mbokki safa fi Seta TV maa ngi bégee ñëpp di ziar ñëpp di ñëw gën seen xotoo ak si journée tey tombé le lundi 13 dañ koy commencé foofu sa Paris Saint-Germain ak seen attaquant bi di Kylian Mbappé bi nga xam ne dina mën a disponible ci seen euh, match bu war seen diggante ak Bayern Munich muy di Kylian Mbappé entraîneur am di euh, Christophe moo yëgle woon ne fan ya passé mën a pare balaa match bi nag contre Bayern Munich waaye démb ndax récupération mi ngi yaa jaar yoon kon commencé war na entraînement ak groupe Paris bi démb te nag mën na disponible match bi suba contre Bayern beneen jour bu disponible mooy Lionel Messi Lionel Messi nag bi nga xam ne dafa amoon blessure contre Olympique de Marseille moom tamit euh, récupéré na si blessure am te nee na mën disponible suba contre Bayern ñu jàll Angleterre club bi di Manchester City bi nga xam ne nag ñu toll boobu ñu nekk. ndax respecté ñu règle fair play financier bi seen entraîneur bi di Pep Guardiola moom naka mi ngi àndi ay leeral si loolu neen naka ak si bangu club ba léegi foofu sa Angleterre kii di Jim Ratcliffe bi nga ne nag bëgg jënd club bi di Manchester United xëccoo ko ak uh, waa Qatar yi nga bëgg nañoo jënd club bi moom na nee na du weesu offre toll si 4 uh, milliards de dollars. Manchester United Arsenal ak Liverpool ay uh, agent wu Ansu Fati nag. jot nañu waxtaan ak club yooyu de leen xamal na nag ne Ansu mën naa jógee Barcelone si mercato bi di ñëw ndax situation am noonu kon temps de moo ko doyatul ba mën naa jógee si club bi kon na club yi ñu li muy Manchester United Arsenal ak Liverpool bokk na si club yi nga ne nag proposé nañ fa kii di Ansu Fati ñu jàll Espagne ak club yi di Real Madrid kii di Toni Kroos moom ba léegi joxeegul bàyyi football su saison bi jeexee wala day continuer prolonger contrat am Real waa Real naka proposé nañ ko offre de prolongation contrat waaye kii di Toni Kroos ba léegi ak tontoogul si loolu gannaaw naka bi nga xam ne jël na coupe du monde des clubs ak Real Madrid jot nañ ko see laaj si loolu nee na continuer di waxtaan ak club bi waaye nag euh, waa club bi dañoo jàpp ne Toni Kroos dafa bëgg bàyyi football su saison bi jeexee du continuer ak ñoom. officiel di euh, doomu Côte d'Ivoire signé na ak di euh, Always nekk première division championnat Bolivie. Real Madrid jël nañu coupe du monde des clubs ci kanamu Al door leen juróomi bal ci yaa ñett final bu ndaw bi mu ngi doon dox ci diggante Flamengo bu Brésil ak Al Hilal Flamengo nag moo mujjee jël final bu ndaw boobu noonu muy ñetteelu place bi ci kanamu Al Hilal ci kanamu Al Ahly door leen ñeent bal ci yaa ñaar kon na Real bi may seen centième titre ñuy jël depuis bu ñu créé club bi. Ligue des champions mi ngi waaj tàmbaliwaat ñu ngi waaj a attaqué huitième de finale yi mardi Milan AC dina laale ak Tottenham su 20h jotee Paris Saint-Germain laale ak Bayern Munich gannaaw suba di mercredi Club Brugge dina laale ak Benfica Borussia Dortmund dalal Chelsea. championnat Sénégal moom tamit tàmbaliwaat na ñu ngi woon si 12e journée yi pro résultat match 12e journée yi si Ligue 1 bi Dakar Sacré-Cœur ak Génération Foot seen match bi dañ koo dàkk. Jaraaf ak Guédiawaye FC dañoo nul 1-1 te Teungueth FC doore Stade de Mbour Dóora Gorée 1-0 Casa Sport Dóora Sonacos li 1 Linguère bu Saint-Louis ak Cneps Excellence dañoo nul 0-0 AS Pikine ak AS Douane nul la 0-0 classement Ligue 1 bi après 12e journée yi Jàmbaar moo nekk si bopp championnat bi ak 24 points Casa Sport 2e 24 points 3e Guédiawaye FC 21 points. résultat match yu doon am si Ligue 2 bi ñett match naka ñoo jot daw si Ligue 2 bi. Kër Madior ak Oslo dañoo nul 0-0 AGR bu Rufisque nul ak Jamono Fatick 0-0 Wakam door a Demba FC tay si lënd bi si lañu war a ndar képp Ligue 2 bi si diggante Mbour Petite Côte ak Walidane Amitié FC dina laale ak Thiès FC dalal HLM bu Dakar bu euh, Port dina la ak Duc match yooyu yëpp lay daw. ñu jeexle ak combat bu doon am démb diggante Tapha ak Bombardier Tafatine nag mu mujjee am ndam si kanamu Bombardier gannaaw nag bi nga ne Bombardier dafa amee gaañu gaañu ba mujjeewul eggali combat bi foofu la ñu yemale xibaar yi di leen na jox di daje beneen yoon si yeneen xibaar di leen ñaan ngeen amee te notification pour a jot ay